asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ku nekk sa tur ak sant di leen sant bu baax ci déplacement bi di sant tata Nogay tata aussi di sant tata Ndeye Seck ñu nga xamante ne ñoom ñoo toppoon si suñu ginnaaw ñoo leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm euh, di sant tan Fama di sant ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ñëpp mais wax ni que man ñun ñun ñëpp kontaan kontaan nañ trop kontaan nañ trop parce que desee leetulu ñu dara li ñu jàng fii tey jii nii comme ni ko tontoo góor seek waxee bu ñu jariñul faneen ni jaru tamit sunu kër yi parce que man mii jouru tam xarit sunu kër fan maa ngi nii du bàyyi ma fen damaa dem marché li tataano gay def fii yëpp ma def ko ba pare dem jëli dem lijjanti machine bi sunu koñ kii laa duggoon seen kër di ko àbb defar lépp ma ñëw ma defar lépp foto ko dama ko fàttee dugg ci groupe bi ma woo ñii ni leen kaa leen xool li ma tataanu ngay jàngal ma def ko sam papa dafa doon félicité naan maan yow fii waroon nga faa yàgg naan maan sa yaay musta musta dugg ci waañ nga ñëw naan da nga koy corriger ma ñëw naan xaar yaay lii nii lañ koy daggee lii nii lañ koy daggee lii nii lañ koy daggee te loolu tataanu ngay moo ko def ci man et tey pourtant man naa dem sama kër def ko fa sama kër fu ma ko fa defee sama wujju ba dinañ ma ñee sama borom en tout cas daal moom ñun kontaan nañ suñu xel suñu xool sedd na trop parce que dañoo ñëw fii ñu taxawuñu yaa ma gën a xam def ba mu baax Tata taakole fee ambiance bi ñu nekk di kaf di ree même comme si que man su ma jàng siwul sax du ma nekk ndax fii dañoo dem ba ñun ñëpp dañoo doon benn famille di kaf di ree ruube te yàlla moo ñu boole yàlla moo ñu boole fii nii. salaamaaleykum. maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di nuyu sunu tata yi ñu fi fekk. di nuyu déjà le leader di nuyu Lamine té li yombul ndax man formation bi depuis corona bi dama tok ligéyuma serveuse la won mais ba ko sama mag waxé dama si contane na te jang du doy mais bama ñëwé tanu gay jangal dama lo xamni ni damay naa en tant que serveuse sopna ci domaine bi mais tamit amna lu mu yok ci man. dama né sama CV lay renforcer. ndax lii sepa pas facile c'est facile nga ñëw jël mbooloo bu toll nii nga jàngalee ci une semaine sepa pas facile lii yombul ndax man nekk serveuse laa dama doon dugg di sob su ma duggee ne chef aadama euh, bu fi nekkoon moo doon sama seede ñun ñaar bokkoon nañu restaurant damay sob di xool mais li ma gis fii xol la yàlla di fay ndax lu xol àndul mook zéro yam te li muy def li boole na ci gëm-gëm boole ci te ñu mu àndal tamit euh, suñu tataay tamit dañ koo encouragé jiital ko ndaxte boo jiitalee nit ki ba pare nga rocceeku day mel ni soxor ak iñaan mais dañ koo bàyyi xelam mu dem ak moom yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla fay DG te tamit Lamine tamit dañ koy remercier chaque jour mi ngi ci ligne bi même ku mu déggul day nekk di wax di xool yow si lan nga nekk di inquiète lii daal yàlla na jëm sa kanam ndax du ma tàyyi di wax naan DG le leader il est le leader Thiès sa kanam rek déjà sa kanam ca kanam merci. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen remercier di leen encourager di len gërëm ci sen teewaay parce que dama xam sen farlu mo taxul man len 16h te xam naa bu ma nee 16h 15h dina len fi fekk maa ngi bëggee nag ñëpp du lim benn quartier duma lim benn koñ parce que yéen ñëpp sama famille ngeen té ni ma len ko waxé won man ak yeen ñoo far première promotion bi ba kéro ñuy ag dernière promotion. lepp lo xamanteni bi man nañ leen ko defal dama leen koy faral di wax ci groupe bi ma ngi ci biir déjà mi ngi ci biir ku ci am projet wala ku ci am lo bëgg doxal duggal nga waxo boko ko mënut dugal waxo comme ñu ci bari am na wax dañ koy baña wax sama numéro ngi ci numéro déjà mi ngi ci d'ailleurs man ni may wax ak yéen ni am nañ benen équipe bo xam sax fama demone demoon seeti leen ñi ngi ci kaw ñu aj am leen lo xam ñom loolu lañ leen di doyé té ñoo ci équipe deuxième promotion bi lañ bok kon encore une fois li nga xam jàngeen ko fi damay ñaan yalla leen jarign tayit aussi tamit dañ leen fassiyene accompagner parce que on a des restaurants yo xamanteni bi ñi ngi tok sur place am ñu xam buñu paré ku ci bëgg dem am fooy xey di wacc am loy def sa poste jariñ leen parce que li ñi li ngeen jang fi la na am na restaurant yu bari yo xamanteni bi xeyna mën nañ ko may xeyna bu ngeen démé li ngeen leen gëna mëna yok dara té filière yi dess na restauration bi lañ jëkke mais amna yenen ak yenen yo xamanteni dañ fa ag encore une fois dal ci ce kanam muy ni bureau bi ñew tew muy bi Binda jang 6 binde Seck bu keur isa mer Ndoye moy yaay ci ce kanam aussi tamit ma fi gis Fat Bintou Ami Doumbia Awa Doumbia Mati Sall ak Awa ñi relation extérieure Awa Mbaye troisième vice président Sen formatrice bi nag Ndiaye moom deuxième vice présidente maa ngi aussi tamit ñoom Aïda Dupi ndai Adam ndai Sek, Diorlo ñoo ñoo nekk ci la communication bi si ñoom Sandian ndai Doumbia trésorier moom Maguette Diop Fama Thioy waaw Fama Thioy borom Kawsara moom aussi ci ñi initié lii ci parce que ba ma jugee Thiali benn match tournoi ñu defoon ko entre Thiali ak Jaxaaw ñoom ñu dañu bëgg def formation ma ñëwaat Kawsara bi ñu jugee Thiali Fama moo njëkk a organiser fans club Thiès ca kanam Kawsara ñu jugee dafa Binta Seck bu kër Issa di jàmbaari kër Issa moom aussi xam suba ngoon guddeeg bëccëg suba ngoon guddeeg bëccëg bi ngi ci mbiru Thiès ca kanam te d'ailleurs sax am na lundi passé ay lamp yu ñu demoon taali ko Medina Fall ci moom mi la waroon a njëkkee parce que lamp yi commande bi daanaka ci moom la njëkkee woon mais xëy na courant bi dafa sori ci ñoom ma jël lamp yi yóbbu ko beneen quartier mais Binta loolu teewul incha allah deux semaines bu ma seen léegi waxoon suba suba affaire yi ñëw ne suba suba may indi la ko incha allah maa ngi remercier ñi fi teew ñëpp di gërëm encore ñëpp di leen wax leen déjà kontaan na ci yéen parce que affaire ko bett moo tax ba léegi di duggagul affaire bi daf ko bett trop trop trop trop dafa jàpp ne lu léger lay doon mais xamul ni ngeen farloo ak équipe bi mu àndal di liggéey ñoom depuis bi ñu falee Thiès ci kanam ba léegi ay tànk kanam la am amul tànk ginnaaw loolu nag laa bëgg mu continuer yéen équipe lañ te bu ñu paree dafa boo xam dañ ko war a dafa am beneen liggéey boo xam ne man ak yéen du dégloonte dafa am beneen liggéey boo xam ne dañ koo war a liggéey yéen ndawal Thiès ca kanam ngeen fans club Thiès ca kanam ngeen liggéey bi liggéey bi dafa des des na lii dañuy soog a door rek pour accompagner leen ci ay action mais am na action yoo xamante ne aussi dama leen soxla ci terrain bi à partir de maintenant parce que dafa am foo xam ne fa lañ jëm te fi ñu jëm duma ko ragal te kenn du ko ragal dañoo soxla mairie zone nord ci lañ nekk nag di ko liggéey te bu ñu nee lépp lu yàgg ndaw moo koy téye te yéen bu êtes des jeunes bu boobu bu loree xumb jigéen a cay nekk te suñu yaay yaa ngi nii ñoom ñëpp jigéen lañ te man ci ñoom laa misé muy ndaw ñi ak jigéen ñi dama bëgg bu ñu jógee fii ñu former ay équipe yoo xam ne secteur bu ci nekk am nañ fa ay quartier bu ci nekk jeune ndaw ña fa nekk am loo xam mën nañ ko liggéeyal Cees ca kanam kon en déjà bis ci tay dama bëgg ñu commencé lool encore une fois dal ma leen remercier di leen bëgg yeen ñëpp di leen gërëm encore une fois yeen ñëpp ci seen disponibilité ak ci seen xam-xam lu gatt li ngeen fi jàng te mokkal ko ma leen ci remercier bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ci kaw loolu aussi waa Kër isa dafa am benn affaire boo xam ne dañ ko defaroon pour war ko jagleel Nogaye xam naa góor ñoom bu ñu présenté ba pare après ñoom ñëw incha allah yaa ngi jëf mbooloo bi nuyu naa ñëpp maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuyu le PDG Pape Doumbia Euh, di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax di remercier Nogaye Ndiaye ci liggéey bu rafet bi mu ànd ak xale yi ngeen wan ko yar ak teggin ànd koog moom ba mu jeex te dara ñaawul kon ñu leen ñi ngi remercier Nogaye njaay bu baax a baax ci loolu waaye olof Ndiaye dafa wax ni peccum léegi bu neexee yaa jaa jàpp ca mbagg ya ku ne xam na ni liñ fi doon def dépense la di ko dépense euh, premier jour ba huitième jour kon ko ko jàppale muy DG ba loolu yëpp taxaw dañ koy santaat bu baax di ko gërëm di ko jox wàccuwaayam bu baax di ko ñaanal nag lu mu man ren bu déwénee yàlla na mel lu ko ëpp fa mu bëgg a yeggit yàlla na ko fa yàlla yeggale yéen ñi nag yaakaar naa ne gis naa ci yéen jom ak fulla ak te xam naa ne ku leen lebal ker ngeen fay ko guddi yaakaaruma loolu leen lebal ker rek ngeen fay ko guddi te DG nag da leen a lebal ker kon nag damaa bëgg tubaar tubaarkàlla macha allah Lamine Wade wax na ko DG zone nord bi la soxla te yéen xale yii ak seeni moroom kenn ku ne na tibb indi ka mu indi mu indi ka ca des keneen ar ngeen wut seeni ku ci amul carte d'identité na nga ko wut mi ngi noonu bu bees baa nag ngeen jagat jagatee ko ba ca meeru zone nord bee teg ko fa loolu laa leen di wax maa ngi leen di dénk loolu jërë ngeen naa ci yéen naa leen jàngal li ma leen jàngal ngeen yàq ko kon it duñ leen wax man la ñuy wax waaye vraiment li ma leen jàngal tari ngeen ko macha allah maa ngi kontaan bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek mu bàyyi ñoo ko yéen parce que li yombul daal lépp nag jëmm ji toog rek rek muy le DG Pape Doumbouya ndax wax dëgg yàlla ni ko Binta Diagne Binta Kër Issa waxee rek moo ci nekk feccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mag ya parce que Nogoy Njaay kese mënul dara Nogoy Njaay kese xamul dara ni ma koy waxee à chaque fois Budul won mom, yalla mën mun na dogal ni du ngeen ma xam man duma len xam mais jëm ji moñu bolé té ñukoy ñaanal yalla lu man ren bu déwénee yalla man ëpp di contane bu baax nak parce que sama xol fess na dal mënu ma wax waaw ni ci dess nañ ko baye ci loxo assalamu alaykum ñi ngi jéggalu parce que dañoo tardé ñi ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam eh, di am contentement biñ fi fekkee li ëpp solo ci aduna ndax li ëpp solo ci aduna yalla da koo def ci borom musóor yi jigéen ñi donc suñu leen fi fekkee dañ leen di nuyu di gërëm le responsable président Thiès ca kanam muy suñu frère Pape Doumbouya di nuyu sama frère Baara mi ma fekk mu nekk jeune bu engagé nekk ci wetu Karim Wade ma koy nuyu bu baax di nuyu sama frère Baye Samba le promoteur de l'arène ñu koy jox wayam di nuyu sama frère parce que ñu bari dañoo japp ni ci sa kanam wala Dumbuya wala kenn moo ñu boole alors que ñoo bokon classe Jules Sagne ñu bari xamuñu lolu Mag Lamine ñoo bokon classe Jules Sagne donc sama promotionnaire la donc maa ngi koy nuyu diko san mais mënuñu ñew ngeen jox ñu cadeau ñu koy parce que jël cadeau indi wuñu liñu indi moy fekk lu bax war ci tek loxo ndax lu bax li di def weesuwul kaay leen jàng xam-xam ndax xam-xam moo lay may dignité soo amul xam-xam dañ lay jariñoo parce que loo baax baax la nangu loo woyoon rek a ciy nekk alalu borom barke rek ngay doon dañ lay jariñoo te doo jariñ sa bopp moom nag da leen jox loo xamante ne mën ngeen cee jariñu je pense que ni formation bi ngeen fi def am na lu tuut lu dolleeku ci yéen donte la amoon ngeen dara mais lu dolleeku ci yéen xam ngeen ni bari na tax na ba suñ leen joxee seen diplôme yi attestation yi am na lu muy représenter donc njëriñ loolu Pape Doumbouya di def ci Thiès moo tax ñun duñ ko bàyyee kenn que ça soit très clair am na ñu ñuy wax ni yéen waa réew mi da ngeen a muus da tax ngeen muus mooy fu ñu leen dégg da ngeen koy tàllal loxo xam naa ni góor li may wax du ko neex donte la jox na ma micro mais ku xam Thiès ni mu bindoo xam waa Thiès fi ñu def la président Idriss Seck waa kooku ñu dénk Pape Doumbouya dénk ñu ko. muy def li ci pap li Idrissa sek bëgg amuñu droit talal ko loxo kon ties sama kàddu wa rew mi ñi ngi talal loxo pap dumbuya mu ñew and ak le président Idrissa ñu jox ko li ñu soxla parce que ñu ñoo ngi donc yéen wa Thiès sa kanam fans club Thiès sa kanam yéen yaayu Thiès sa kanam yeen xalé yi ci ca kanam xam leen ni li ngeen yor la ñepp bëgg dumba ya ndawalu guddi la ku ci daj da ngay jaxane yow kese ya ko mom mais nak nit ñi dañuy jaawal ay relation Gora Seck ngi ni taxaw yor micro bi APR la bok bi may dugg ci malik Dieng mi ma andal may profito diko wax joyeux anniversaire ndax tey la anniversaire am de mission bu mimu Touré la ño bok auto bi ñi ñew donc politique du ñaawal du xaste ay idée la mooy li Pape Doumbouya def yéen nag yéen ay dooley Pape Doumbouya ci yéen laay jaar tey pour wax ko président sa Seck soxla na ko Macky Sall mii munul ndax su mënoon ngeen am xëy te amu leen xëy ba Pape di leen ko utal. nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam bu ñu nuyoo góor a nuyu PDG yaakaar naa nuyu nañu mbooloo mi yëpp ma leen di xamal na leen lii ngeen di def nii tuutul ndax benn réew.

ñuy nodd ñu nit leen dégg président Macky Sall la kon donc ñu nit bu Aly Nguer amee la ak fayda ñu nit war nañu mën a am fulla ak fayda tàllal Pape Doumbouya PDG loxo mu ñëw ànd ak son excellence le président Macky Sall liggéey Thiès jëm ca kanam ndax Pape Doumbouya ñun daf ñoo yéem ñun ñu nekk ci état bi xam nga boo nee conseil maanaam kuréel gi ñu nekk kër gi ñu nekk mooy conseil économique social et environnemental ñun suñu liggéey mooy xool li doxul ñu wax ko suñu présidente cabinet bi bind ko jox ko son excellence le président Macky Sall ñu xool fu doxul ñu ne fii doxul nañ ko doxal mais la may wax Aly Nguer benn jour dama ko ne Thiès sa kanam tur la koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii tey yor nga mouvement de soutien nekk à Thiès war ngaa mën a jël sa mouvement boobu ñëw seyal ko ci biir Thiès ca kanam ndax leen rek la ñuy di wër leen rek la ñuy di wër jëm ca kanam Kenya ñaanul yalla yaakar na yeewu bëgg delu ci kon PDG ñu koy nuyu di jaajeufal diko di ko wax ne ko fi mu tek tankam fofu la li moy liggey bi andok état andok opposition opposition dina talal loxo état dina talal loxo lolu yaakar na benn doomu adama dong moko mësa am ci Sénégal te yaakar na du ñaar du ñet ñukoy wax ma ngi sant ñep di gërëm ñep wa salaam sama tataay sama makki sama rakki euh, initiative bu nice. lañu def wa Thiès sa kanam mënuma wax ci mbolo nak trop mais en fait comme li ma wax rek ñun ñëpp ñoo bokk génération donc bu may xol li daf may yóbbu ci samay début parce que cuisine sama passion la won légui bu mu nekké sama passion ma nekk di ko def tout le temps nit ñi di ma solliciter sama frère ne ma pourquoi pas nga dem wuti ji diplôme may jóge fii Thiès di dem Dakar di jangi chaque jour di ñibbisiwaat Thiès ba am sama diplôme hôtellerie et restauration Lolo tax ma c'est une chance si une semaine ngeen def formation bu baax ak seen formatrice bi euh, si xolam bu yaatu si disponibilité am ba ngeen am seen diplôme bi te diplôme bi ça va vous servir parce que euh, fini, nii kayit la ñu gëm boo amee kayit donc nga am jom mën a liggéey boo osé rek bo defé lu bax rek yalla dina la jappalé parce que choono du réer boromam donc wa comme liñu wax rek yalla bax na da <laughs> merci beaucoup ma ngi leen nuyu yeen ñep ku ci nekk sa tur ak sa sante di contane di lu jotaay bi di bekk ci dumbi ya ndax li bu amé tay yalla ak mom la ndax mënon na no préparer suñu waxtaan ñun bureau bi di ko soumettre ko ko mu ne loolu duma ko mën mais Pape gisuma lenn luñ koy soumettre te tegu ca loxoom kon lii bu amee tey yàlla ak moom la ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a àggale mouvement moo ko xam yàlla nañ ci ànd moom ba gis ci lu kawe suñu njort di kontaan ci ñëpp nag bàyyiwuma kenn bureau bi ñu nekk ci panel bi ñëpp maa ngi bëgg ci ñëw xale yi nag liñ leen jox nogay mi formé leen ko na ngeen ko jël ak fulla ak fayda jëmbat ci seen fulla ak fayda bu leen kenn santaaj ci dara ndax da ngeen a am seen métier ñu jox leen seeni attestation tey foo leen dem xam leen ni yéen da ngeen a am li li ngeen li ñu nit ñi bëgg dangeen ngeen koo mën bu leen kenn santaaj am leen fulla am fayda xam ne yéen da ngeen a liggéey ba am bañ jox leen ay diplôme santage bi lu may bañ nga dem ñu naan la li ak la li ak la ngay nangu loo nga xamantene du yoon ay jigéen ngeen da ngeen am fulla am fayda ndax yeena suñu suñuy yaakaar te ëlëk yeen lañu yeen lañu sago yeen lañu sago wa di contane nak di remercier ci ñepp di contane ci ñepp di rafetlu Lamine Lamine Wade nag moom mënuñu ko fay Lamine Wade góor a sekk mënuñu leen a fay bu deug rek de deug te deug la yalla bëgg Lamine Wade mi ak góor a kenn mënu leen a fay xamuñu guddi na xamuñu naaj na xamuñu benn heure chaque jour man de man dama leen di déranger heure bu ma neexee dama leen di déranger heure bu ma neexee dama am na benn bi sa damaa woote ba pare yaa ne man li ma wax ndax teg li ma woote ndax teg naa ko fenn góor a mi warta mën a tëdd xanaa ma diko wo erbi, heure bi ngeen bal ma ci loolu ndax man man man dama xawa taxet numa ko sentir rek non la koy doxal ya ngay may mais ñom say bu ma leen di kenn kuma ci rejeter ñepp ñom ñom ñaan ñepp dañ may wuyu ah di gërëm Collé Nogay Ndiaye mention spéciale Maguette yeen ñu doon taxawé mbir mi Awa mbay ah Mati Sall ah Ndoya machallah yo binte keur isa ken manula fay fi ne dal équipe lañu kulim juum maa ngi kontaan ci ñëpp nday sekk billaahi Cees ca kanam famille lañu boo nga xamante ne yàlla moo ñu boole Aïda Dupi ah Dior Lo Khady Sow Fatou Mbow ah, Fama Thioy ñooñ ñëpp ci Cees ca kanam lañu di ñaanal yàlla rek yàlla nañu gis ci lii ñuy mëbët lii nga xamante ni sumb nañ ko ànd ak suñu DG bii nga xamante ni macha allah yàlla nañ ci gis lu kawe suñu njort DG li nga bëgg yaa ko xam yàlla la ko suñu borom defal ndax bis lii lii bu amee à cause de yow mosuñu mm-hmm. laa tegloo teggi mosuñu laa tegloo teggi saay buñ la waxee liñ la liñ la teg nangu nga ko yàlla mi am jàmm nag yàlla na la jàmmal jàmmal ñu jàmmal mboole mu jullit kontaan nañ ci ñëpp auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen balu àq di leen balu àq di am contentement bu baax nag sama xol sedd bu baax maa ngi jiital ci nuyoo bi ya teg ci Moodu Lamine Wade sama doom ji goro a nuyu naa la yow Moodu Lamine Wade dama lay nuyu di ñaanal ñaanal ya bu baax a baax waaye teg naa la ci ndax xale boo heure bu ne la ko mag di damay ne ci sama connexion ba 3 heures su la wooyee nga tontu ma góor a noonu nuyu nañ ñëpp ñoo ngi nuyu di leen wax ni leen kees kanam yar ak teggin moo fi am ndax nit ku nekk rek tegaleem bu jubee ya ca topp day jub dama koy wax di ko pal Pape Doumbia ya keroog mu ñëwee seet si ni siget xool ma ci laa doon mag sama taaw xam naa ni moom waaye nag xaw na andang ma ko ni ak moom ndax am na yar am nay teggin nga ñëw ñu woo ma fii ma ñëw ni am ah, man de ay xale rek laay wuy ji dem toog fee xool sama doom yi kenn ku ci ne am nga yar am nga teggin waaw kenn ku ne am nga yar am nga teggin ndax nag lu ne lañ mën a tere nit ba mu des xool ak nettali maa am contentement ci ñoom bu baax topp ci seen ginnaaw ndax nag maa leen mag fuuf bu ñu duggee ci groupe bi ma dugg nuyu leen macha allah xale yu am yar am teggin Pape Doumbé li ngay jeex yal na la ko yàlla jotal ci barke yàlla ak yonente bi sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di bëral nuyoo nag nda eh, kii Nogoy Njaay Nogoy Njaay yow mention spéciale lañ lay defal ndax xale yii ñëw fii kenn ku ci nekk am nga yar jëli nga fi loo xamante ni li xale bi wax rek man samay xale ci tam gi bi ñuy defar damaa waaru man leen yéen lii juróom-ñetti fan nu ngeen ko ci manee ñu ni yaay bu ñu catu kon noga yow yal na la yàlla defal jàmm bàyyi laa xale yi xale yi ni ko Binta Jaañ si waxee rek ni naa leen ko waxee am leen jom am dignité gis nga jom ak dignité boo ko xasee ba am kenn du la jëlee ci leen xam nga leen moo gën a bon tuut fii tuut fee jàpp leen fii ndax fii li ngeen fi am amu leen ko fenn kaay def kaay def formation la dërëm jox la ay ndugg ngay defar di ñëw di dem ba am sa diplôme tey yal na leen yàlla jàppale yéen ak président Pape Doumbouya Binta Diagne Ciss maa ngi lay nuyu yéen ñëpp am ngeen yar am ngeen tegg ndey sek nuyu naa ñëpp bu ma li limee dama jum li ma ko waxee rek maa yaayi kees te kanam dama jaboot gërëm naa ñëpp nday ya kolé sama doom ji nak mako mbéro nuyo spécial waaw kolé dafa dag damaa defal teranga bu reuy bu re, mi ngi ni ma sol mu dag ko jox ma ma ñaw ko sol ko te xawma fu ko yaayam juré kon yoy ma nga lay ñaanal yalla di ñaanal ñëpp di remercier ñëpp di kontaan ci yéen kees ca kanam daal ci kanam kanam kanam kanam kanam ci kanam ci kanam barko sun taw waaw jere ngeen def euh, ma wat rek di nuyoo ku ci nekk sa tur ak sa sant te ci nuyoo bi ñu jiital fi ki nga xam ni wax dëgg yàlla moo waral lii yëpp muy monsieur Pape Doumbia nekk président Thiès ca kanam dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax parce que nit ku am vision la nit ku am mérite la nit ku am générosité la nit ku am yërmande la ci nit boo gisee ñu nekk ci wetam looloo ko waral

kon ku nit nekk jàppal ni nuy na la bu baax du nuy Kolle Mële du nuy vraiment tout le monde nday sekk tout le monde ak sama jabar du baax euh vraiment bi Thiès kanam te kanam juddoo ba légui li Thiès te kanam limu def yëpp bari na machallah mais jàppaleen ni man Ablaye Mbengue bi moma ci gëna neex xam nga lu tax uh-huh. ndax bii moo wane deug dëgg yoonu Thiès ci kanam ndax ñun dañoo gëm ni Fapal Mbiya dafa jël fi ngeen fi ngeen nekk nii tey ji seen cinquante morom macha allah ñu ngi fiy liggéey tey mu jëlaat lu toll noonu wala lu ko indi leen fii di leen formé kon dama leen wax ni la kan suñu vision mi nga xam ne moom mooy Thiès jëm ca kanam ci lañ nekk ba tey ndax kat suba boo koy liggéeyal booy liggéeyal suba da ngay liggéey ci ndaw kon dañ leen a yaakaar. moo tax ñu dajale leen fii jaakaar ne lii ñu leen defal ëllëg dina leen jariñ jariñ seen askan di leen wax nag kër bari na loo xam ni nit da koy sàkku ba ñu defal ko ko ba pare mu foyee bu mu leen dal nag bu mu leen dal de dañ leen a jox alal alal laa dañ leen koo jox jox leen yar dox leen lu bëree bëri ci formation bi loolu nag na ko doxee bu ngeen ko doxee di nga leen amal njariñ ca biir kër ga parce que ñaan ngeen yàlla am ay boroom kër yore seen kër wante tamit dañ leen amal njariñ ci seen poos na nam leen ko xamoon keroog mën na ko am kon nag lu lu jara fonk la li ma ci teg nag mooy nii la Thiès di kanam di doxee te ñu ngi leen ci woo yéen ndaw ñi Thiès ca kanam Pape Doumbia defalu ko pour boppam defalu ko pour man Ablaye Mbengue defalu ko pour góora ni keneen yéen ñii la ko defal kon nag yéen seen Thiès ca kanam seen yëf la dañoo bëgg ngeen téye bu baax a baax a baax a ngeen am ci fulla am ci fayda nag ba dara mën leen a bañ a fëkk sànq dama dégg dama fekkee fii ñaari xulo ci diggante sama rakk Alinguer ak Malick Alinguer jóg daal ne moom moom réew mi la bokk daal jóg na waa réew mi moom euh, Pape Doumbia moom dañ ko bëgg ca réew ma te réew mi maa li jóg tontu ko ne lu tax loolu ñun APR ñoo ko gën a soxla kon loolu su ngeen ko déggee rek dafa leen di jox dimension Pape Doumbia parce que dëkk bi ñu nekk ku baaxul kenn du la xëccoo ku baaxul kenn du la xëccoo laa wax Karim Wade nekk sa doxa directement ko gën a soxla jeex na gis nga élément Karim Wade bi taxaw na ne moo ñu ko gën a soxla mais loolu yëpp bu ngeen gisee bu ngeen gisee ba Thiès Ca Kanam juddoo ba léegi ba léegi am ñuy ngi xëccoo Thiès Ca Kanam te Thiès Ca Kanam garder ligne ba ba mu nekkoon ba léegi c'est parce que rek lañ nekkoon dañ koo gëm buñ ko gëmul woon kenn duñu xëccoo kenn ñu faale kenn ñu bëgg sax xam mais tey jii amul benn leader bu nekk cees nekk senegal te tey jii bëggoo Pape Doumbia ànd ak yow. wante nag ñun ànd ak ñun di noonu de ñun dafa am lu ñu gëm xam lan lañ gëm yéen askan wi ku ci nekk yënga ñu ñoom ku ci nekkul nekku ñoog yow suñu baat ca kaw ku jàppale askan wi Pape Doumbia dina la jàppale ku jàppale askan wi Pape Doumbia xoolu la

xamna naa tout à l'heure coordonnateur kii dina ñëw am nañu tamit programme pour les jeunes garçons fële li lycée technique inshallah dina door dina len jangal menuisier jangal len électricité jangal len plomberie jangal len lepp lo xamné amé am kon nak lolu moy Thiès ca kanam lolu moy vision Thiès ca kanam Thiès ca kanam ca kaw ku bok Thiès ca kanam yëkkati sa loxo ma gis la way ana wa Thiès ca kanam la wax mané ana wa Thiès ca kanam. jërëjëf remercier euh, ñi nga xamante ni ñoo bàyyi seen lépp ñëw assisté ci lii ba ci jiital nag mel ni ñoom Ali Anguère parce que moom mën naa ko bañ a remercier parce moom on est toujours di nuyu bien Malick Malick ma koy remercier bu baax di remercier Baye Samb di remercier surtout sama jeune frère Bara Bara Faye parce que mën naa sax invité moom bàyyi itam ñoo toog donc baax na maa ngi remercier bu dina vraiment amal ab cant cant bu wér maanaam tey euh, euh, mbiru ca sa kanam jigéen maa bëgg ngeen tàcc ma jigéen bu baax ñooñu ki leen jiite ñoom ñëpp mooy

vraiment loolu loolu suñu yitte la ñu ngi ciy waxtaan ak ñi ci war a waxtaanal ñi nga xamante ni jàpp nañ ni mën nañ ñu apporter dara ñoo ngi ciy liggéey. pour revenir nag ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg à proprement dit tey jii mooy Thiès sa kanam. mooy la formation bi nga xamante ni commencé nañ ci ndaw ñi. incha allah loolu mën ci fay na koy jaar. parce que. nit ki lepp lo nek lepp lu ngeen nek amna ko koo amna lu ci yalla may je pense que kokku dañ ko wara a ni te gis nga dama len ni garantie na gis nga ñu ne fi muy ci télé bi muy ci ndox mi muy ci gar yalla def na formation bi ñu am yépp série télé bi yépp ñuy def fi lañ leen jàngale fii lañ leen formé fi lañ ko amé donc c'est pour dire que fii lépp a ngi fi nekk ndaw ak loo mënti nekk faut que nga nangul leen fonk say waajur cay mm. nangu liggéey dama ni je me répète fonk say waajur nangoo liggéey dëkk ci réseaux sociaux yi taxawaalu tardé rek mm-hmm. ngeen baal ma nekk ci yeneen ëllëg di ñaan wër di ñaanaatu. ku la may benn yoon bu ñaaree mu ñettee mu jël. su nekkee ndaw. ma aaye fukki at ak juróom-ñeent laa commencé dawal sama bopp. gas naa foos. nga foos sax gas naa. nekk naa maçon. nekk naa tailleur. nekk naa animateur. nekk naa rappeur. mujjee ci cimenterie yi. mu dellu si fii. y a pas de yow de yaa tax yalwaane wu ma. yaa ko waral de. yéen waaw yéen ndaw bu leen kenn distraire xale jigéen bu leen kenn distraire foo moom ku ko ci defit dangay ngay tar. dëgg la wallaay dëgg ko mosoo gis ku foog a fayee ko. Mm-hmm. ah non kenn du foog jëf rek ñun ñëpp am nañu moyen foofu. fukki at a ngi nii musuma añ ak sama kër njaboot ca ñi xam nañ li ma xaw ma sama njaboot toog ñoom añ xaw ma kon nag dañ fexe góorgóorlu ci lépp lu ñu ne te xam ni amul kenn ku judduwaale milliard ñëpp bokk nañ juddoo donc tout est possible dans la vie loolu laa amoon lu ma ciy wax ma leen di remercier di ñaanal ñëpp di wax ni war na ñun résultat xam nga mooy lan formé